bonjour sama gars yi di leen wax ngeen dal jàmm si ma seen YouTube Net Bi TV di am mbégte ak kontaante bu baax si seetaan bi ngeen seetaan ak siiwur bi ngeen siiwur ak yéen ñi xam ne da ngeen seen commentaire ñu ngi gis ñu ngi ci am kontaante bu baax a baax di wax ne yéen ñi nga xam ne ga ngeen seen bi te abonné gooleen ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te activé cloche notification bi di dikk ak di dafa yéen benn taxaw seetlu rek si famille sénégalaise si ki nga ba Fanta xawoon xawoon see tiit sax moom Fanta ba Fanta xawoon see tiit sax naan ko loo leen doyee en tout cas maar xamal ko ne ko dama laa bëgg a takk soo nangoo rek ma takk la waaye nag ki nga xam di Fanta moom nangu na sëy ak maar moom Fanta. nangu na wujj ak soxna Bator moom Fanta ndax boo xoolee démb joxe nañ benn question si commentaire yi ne ndax ndax Fanta mën naa régler soxna Bator bëri tontu neen si commentaire yi en na ñu ne ndax xam na lu soxna Bator capable ak lu mu capable lépp am na ñu ne Fanta mën naa régler soxna Bator ndax xam na secret soxna Bator waaye nag am na ñu ne mënu koo régler moom Fanta waaye nag ñi wax ne Fanta mën na koo régler ñoo ëpp si commentaire yi ndax boo xoolee soxna Bator yebul Fanta benn yoon moom yaakaar na am na lu tax mu ne waaw ndax boo xoolee soxna Bator capable na trop waaye nag Fanta yàgg naa ki nga xam moo di soxna Bator kon Fanta war naa xam ki nga moo di soxna Bator moom Fanta. en tout cas maar moom gisul lenn lu takk soxna moom maar takkal soxna Bator wujju moom maar ba waxtaan naa ki nga moo di Fanta ba Fanta d'accord na kanaa dañuy xaar rek fii wànnantu di mujj ak bëtam fii maar di mujj ak soxna Bator wala fii soxna Bator di mujj ak Fanta. gars yi xam naa dañu ñëw di yem ak fii si vidéo bi rek di wax ne ñi nga am mbégte ak kontaan bu baax si seetaan bi ngeen doon seetaan ak siibur gi ngeen doon siibur di wax ne yéen ñi xam ne ga ngeen seen bi te abonné ñu ngi leen ñaan ngeen abonné te activé cloche notification bi jaa ngeen jëf yi